لسكينة بكل الجنة من داري من نيات منا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa ak sant di sant yàlla bu baax di ñaanal Serigne Mouhamadul taxa sunu borom yàggal ko fi loolu tama ànd ko wér mbokk yi xam ngeen ne niñ leen ko waxee woon euh, fan yi ci image yi nga xamante ne bi yéen ngi ko doon topp ci académie Minane Ba Khadim muy soxna jaara yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci daara yi soxna maam jaara bu sa poroxaan euh, ginnaaw bi ñu leen jëlee euh, liggéey bu am solo bi nga xam mi ngi doon am ci poroxaan ginnaaw bi nga xamante ne bi euh, njàng ma noppi tey jii incha allah ñu war a nag saytu lu tolloog ci ñaar fukki maam jaar ak juróom-ñett muy 28 ñu commencé woon ko nag le le 29 ba tey di 30 ñu teel leen ci ci ñaari fan yi Euh, loolu li tax ñu koy def mooy euh, dañoo bëgg xale yëpp euh, tolloo su ko defee ñu commencé ndoo soo demee ba nga xamante ne bi daal xaajal nañ wala ñu jeexal téere kaw bi su ko defee ñu noppalu ba suba su ko defee ñu noppal leen ba suba moo waral ñaari ñaari ñaari fan yi am na si ñoo xamante ne bi tamit bi nga xamante ne bi commencé nañ ko Euh, am na ñoo xamante ne mën nañoo àggal sax si bis bi waaye loolu lañ si jublu moo tax ñu ñu ñu ñu defee ko noonu kon nag euh, liggéey baa ngi nii xale yaa ngi nii toog ci biir mbaar mi di tari ci njiital Serigne Mountakha Mbacké Serigne Mamour Pakala ak euh, lenn ci lenn bi nga xamante ne bi ñooy seetu la jëm ci wàllu alxuraan mi ak Serigne daara yi nga xamante ne bi ñooy jàngal soxna jaara yi ak ci teewaayu Serigne Moustahine démb gis nañ ko moom it mu ñëw fi euh, saytu xale yi mbokk yi daal lii lañ leen fas yéene incha allah jëlal euh, ci xale yi kon nag euh, ni def mooy dañu àndandoo ak yéen rek jël lenn ci soxna jaara yi nga xamante ne bi tamit njëkk nañoo pare ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne bi moom lañ war a def kon nag mbokk yi ni ñuy def mooy dañu àndandoo ak yéen rek jëlal leen liggéey bi di leen wax ne incha allah àllarba ak jàmm ci la soxna jaara yëpp da ñëw nag ñu bëgg mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi su ko defee ñu ñëw teertu soxna jaare yooyu euh, sagal leen euh, tere leen képp koo xam ne am nga ci gone nga ñu si ko ca déglu kàddu yi nga xamante ne moom lañ lay wax ci soxna jaare yi ni toppatoo bu ñu demee ci seeni kër kon nag li ñu def mooy dañu àndandoo ak yéen dugg ci liggéey bi incha allah danañ leen jëlal lenn ci jëwriñ yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci daara soxna jamaam jaara bu sa poroxaan yéen a nga ànd ak euh, Muntaxa Njaay ci micro bi ci Daawda ci caméra bi ak Sëriñ Ba kon nag jërë ngeen jëf ba ci kanam incha allah الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإن تقنى الجبل فوقهم كان زلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولقد ربك من بني آدم من زور ذريات بشر ذريات بشر على أنفسهم ولست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان الغاوين ولا شئنا رفعنا به ولكن أغلى الأرض واتبعه به مثله كمثل الكلب تحمل عليه الهدى تطلق يلهث ذاك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص قصص لهم أنهم يتفكرون ساء القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يد الله هو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القلب بالعدو والعصول ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبعون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته فإذا تليت عليكم آياته زارتكم إيمانا وعلى ربكم يتوكلون ألم يأت نبأ الذين من قبل نوح وثمود والذين وقوم إبراهيم والسابر والمتفارسون بالبينات ما كان ألم يأت نبأ الذين من قبل نوح وثمود والذين من بعد لا يعلمون وقوم إبراهيم والسابر والمتفارسون بالبينات وما كان الله لزيم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله لا عيسى يسترحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمن والمؤمن الجنة من دخل النار من دخل خالد في وساكن طيبة في جنة رضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ذلكم وأن الله موهن غير كيفه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا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 Yeah. Euh, ñu ngi jàkkaarloo soxna Astou Gawane Mbacke moom it mu bokk ci ñi nga xamante bi ñëw dëkk Touba ca euh, ñëw ci liggéey bu am solo bi nga xam bi ñoo nekk ci daari soxna maam jaara bu sa Poroxaan doon tari alxuraan karim fii ci dëkk bi asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim macha allah xale de macha allah njàng mi ba rafet na baax na am nañu yar macha allah xanaa kat leen ñaan yàlla rek yàlla def ne am mag ñi am bokk ñi mag ñi xam ne ah bu ñu si lu baax rek bokk leen sax daara Porokhane moom moom bëgg naa ko lool lool lool sama xol moom maa ngi ñaan rek yàlla na yàlla may amam jaar ba mu yóbbu ko fa rek macha ma goy goy daa neex nañ ma lool lool lool lool ñaa ngi ma rafet na te seel na te ñaan nag waajur yi ñu ngi ñu gën leen jàpp rek ñu góorgóorlu te jàngale kay timide jàmbaar lañ lool lool lool ndax na ndax man mi wax yow laa ay xale ku di ku di ko ñëw atum lëmm nga xam ne sonn nga waaye lii ñaan yaa rek yaa def leen fan gudd a yërëm lépp ñu gis liggéey bi yaa faj faj dimbali ko sëñ mu doxaa Mbàkke ñu ngi ko ñaar yàlla gudd ak fanam loor ba mu yàgg fa ñun lool Mbàkke baax ndax li mu def nii lu mu liggéey bu baax la defoon nga xam ku boole ay ay goy na yóbbu daara seen yaay xoot bu ñëwut fay dafa dara nga jàngale mokkal alxuraan mokk sell gi xanaa lay ñaan yaa rek yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu suñu kanam ndax fi ne xale dangaa war bu fekkee dafa jógee fee fi euh, bër ñëw si yow yémuy waajuram da nga kaa war taxaw footoon naa ko demal demal demal demal jàng ndax day tax day tax ndax day tax bu fekkee dafa dellu sa daara ja du sa du sonal ka jàng waaye xale bu bër ñëw nga daa koy bàyyi ma nga seetaante ma ngi ciy fecc ma daa jël kolom gi sànn loolu lépp waajur dañ cee war a taxaw seen xay dikk ñëwee bis set ñu joxe fukki isib daal daal daal leen jàngale ko ndax fi ni suñu xale xale bu ma day gaaw a rawet nag jigéen xanaa xanaa kay di sant waajur rek ñëw ñu jàpp si rek ngir yàlla en kàddu am na solo ca matale nag comme ni ko waxee rek loolu daanaka duñ jóg ci mukk di ko di ko soññe mooy xale yoo xamante ne dañ leen yóbbu ci daara ja duñ gis télé duñ gis téléphone kon nag euh, di di gën a soññi waajur rek ñi gën a pëstéefu comme ni ko waxee bu ñëwee ñi leen di saytu di leen euh, defal li nga xamante ne bi moom lañ leen daan defal ci daara ja loolu day ko daan jàngal kii ni ni nga ko yaree ci daara ja ndax yaakaar naa boo seetloo ñoom ñoo li ñuy toog ci daara ja moo ëpp li ñuy toog seeni kër kon nag lool nga laaj jàngalekat bi fi mu jaar xale bi ba xale bi man li ba yaru loolu nga laaj ko moom mën na la ko wax ndax moo la gën a xam xale bi yaa ko jur moo la koy gën a xam kon nag lool nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi sant euh, ñëpp di gërëm ñëpp kon nag ni ñu ko waxee woon rek dañ fas yéene ànd ak yéen lépp loo xam daal tukkee na fii ci euh, ci euh, daarul minan fii nga xam fi la soxna jaare war a ñëw incha allah dana leen ko indil jërëjëf soxna si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm abli sabinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna